li imaam ndaw waxoon ci loolu lañ ko jàppee yóbbu ko mais li ma gëm mooy euh, bu ñu xoolee tuuti si imaam ndaw parce que mu ngi yàlla na suuf sedd si kaw pour man war nañ war nañ bàyyi mu sedd nañ bàyyi mu sedd parce que écoute ay écart souvent dina am un peu partout on a eu à laisser des cas plus graves ñoom Karim li may ñaan mooy président ministère de la justice ñi ko téye waxtaan ci bu baax a baax. pour mm-hmm. bàyyi lan ñoom ak ñeneen ñi nga xamante ne téye nañ leen. Mariam yow laay interpellé nee na ñu bàyyi mu sedd ak niñ ko posé.